jërëjëf mbokku téléspectateurs yi juróom-ñaari waxtu jot na ba tegal fanweeri simili tey di alxames juróom-ñaari eh, ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru sulet ci atum 2024 ñu ñëw yaatal la xibaaru mbarax yi daal di koy tàmbalee la xewoon euh, bërki démb fële ca caaro yi sur mer mooy ñetti xale yi ñu fekkoon ci benn oto ñu ñàkk seen bakkan ba nga xamante ni jamono ji police bi mu ngi ci indi ab euh, l'enquête loolu nag rédaction bi tax mu def ab gëstu ci oto yi nga xamante ni ñooy gaare ci dëkk bi kenn nekku ci kenn daal di koy jëfandikoo ñenn ñi jàpp ni loolu day gën a ñoŋal euh, wala yokk mbirum insécurité ci réew mi ñeneen ñi ne ni war nañu nguur gi war na ci taxaw ba daal di jële ci euh, mbedd mi oto yooyu nga xamante ni dawuñu demuñu dikkuñu ñu teewlu ci leeral geek Cheikh ngoone ak kii di Amadou Ba yoo xamante ni nag duñu daw dañuy sax paan nekk ci li nga xam ne nag euh, moom moo di yoon yi wala bokk ci yenn ci ay koñ ci ndakaaru daanaka dem na ba ñu bëri daal di yoona lu ni mu nekk aw situation boo xamante ni nag jaaxal na ñu bëri ci askan wi. la xew ca Thiaroye sur bokk na ci li firndeel lu ni mel. dafa nekk situation boo xamante ne lu lu doy waar la lu diis la. mu dal ay ay ndaw donc seen waajur ñàkkee seen bakkanu doom ci kan euh, condition yooyu donc lu lu metti loo xamante ni voilà war nañ ci jóg jël ci ay ay matuwaay. mbedd bi du espace boo xamante ni lépp loo xamante ni moom a toog wala lépp loo xamante ni soxla toog da nga ko fay sànni mbedd bi du mbalit daal kon oto yi euh, chauffeur yi war nañ gën a jël war nañ gën a am conscience si seen euh, devoir citoyen war bañ a bàyyi seen oto yi à l'abandon ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di autorité yi fii ci Ndakaaru saa su ne ñu ngi jéema def noo xamante ni daañu moyu bi la situation. ñu nag bu ñu enlevé dañuy yóbbu fourrière parce que ville Dakar mooy la seule ville boo xam ne am na fourière municipale boo xam ne mu ngi fii muy mu nekk Grand Yoff mais fourrière boobu daanaka fourrière de transit la c'est-à-dire dañ fay yóbbu oto bu ñu ko fa enlevé yóbbu ko fa du fa durer un mois. après ñu mun ko transférer bu fekkee ne borom ñëw ko jël si ñu transférer ko yóbbu ko fourière état bi mu nekk Sébikotane ñun nag ñu ngi liggéey ci yokku capacité fourrière boobu ndax am na benn fourière boo xam ne ñu ngi koy waaj aménagé fële ci mbaaw pour un peu yokku baral maanaam liggéey liggéeyu enlèvement yooyu voilà. c'est vrai que opération yooyu ñuy def peut-être que njeexantal bi mooy euh, assainir l'environnement parce que bu ñuy dindi di xàll ay yoon. di xal ay passage pour nit ñi mën a am fu ñu jaar dafay renforcer suñu kaaraange. kaaraange d' abord ci wàllu dem ak dikk foo bëgg a dem di nga fa dem te ñëw du am problème ci wàllu cet salubrité bi maanaam du am maladie périfocale du am épidémie boo xamante ne bi day euh, concerné dëkk bi yëpp. ci wàllu euh, sûreté sûreté mooy lépp loo xamante ne mën na indi gàllankoor ci wàllu nekkin doomu aadama ci wàllu sécurité loolu yëpp da koy andi da koy da da koy da koy defal ensuite euh, ci wàllu tamit euh, mobilité. ngir gën a wekk ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di ndaw ñi rawatina ci jamono yi nag ñuy amal li nga xam ne moom moo di vacance way jur yi ñu ngi sàkk ci ñoom ñu gën a xippi seen i ay gët. xale mënul am responsabilité ci li ko dal donc période vacances lañ nekk kër yi léegi fii ni ñuy bindoo dañuy xëy bay xale yi kese foofu il faut ñu fexee di bay xale yi ci ay conditions sécurité. xale war mën a gën a kër te bàyyam da xam fu mu nekk yaam nekk bon war nañu bàyyi xale xel li xew ci thiaroye sur nag daanaka mu doon aw jéye joo xamante ni ba tey ñi ci ñàkk seeni ay njaboot ñu ngi wéy di sëngeem eh, ci loole itam xale yooyee ndaamaar yi nga xam ne nag moom la ñu génnee àddina ki ko moom daal nañ koy teg loxo fileeg nag ñuy wéyal li nga xam ne moom moo di l'enquête bi ñu wax ci euh, leneen ci euh, tukki te jaarul ci yoon juróom-ñaar fukki ndaw Sénégal yi nga xam ñoo ngi leen euh, te fële ca désert bu Tunisie nga ñiy def lu ni di ay defkatu ñaawteef ñoom ci seen bopp ñi ngi demande ñi ngi laajte koppar ngir mën a libérer ndaw Sénégal yooyu ñooñu nag bu ñu seetloo ñi ngi bàyyeekoo fii ci Thiaroye-sur-Mer ginnaaw raay ak Pikine yeen ak feneen ci gox yi fii ci réew mi ñoom nag ñi nga xamante ne mooy meeru Thiaroye-sur-Mer yëkkatinoo ay laaj ndimbal ci nguur gi ak i tamit ki nga xamante ne mooy Boubacar Seye moom mi jiite euh, Horizon Sans Frontières moom nag yëkkati na ay kàddoom daal dina kat fi mu ne xale yi dañ leen war a gën a mën a taxaw ngir ñu mën a dellusi fii ci réew mi ñu teewlu ay kàddoom ci micro Abdoulaye Pathé Anne muy profité nag di lancer un appel euh, à l'État du Sénégal que tey plus de soixante-dix ressortissants sénégalais ñu ngi ñu téye foofu ci Tunisie depuis depuis pratiquement deux mois seeni mbokk nekk ci ay njàqare ñu bëggoon loolu ñu jóg ci pour ñooñu mën a dellusi mais ñii ñu ngi woote mais laajaguñu xaalis mais daal dañ leen téye euh, seen mbokk yi nag sonn ci moo tax euh, vraiment may ñaax l'état du Sénégal daal sur, la, sur cet problème de la migration ñu organiser rapidement euh, ce qu'on appelle les assises pour waxtaan pour fexe ba joxaat espoir xale yi pour mën a sauvewaat ñeneen parce que au moment où ñuy wax nii am na ñeneen ñuy préparé am na ñeneen ñuy làpp chaque quarante cinq minutes am na kuy dee ci géej chaque jour wax nañ ni tey trente trois personnes ñu ngi perte seen bakkan ci biir géej gi xam kon loolu ça devrait nous interpeller ces chiffres là moo tax may am mbégte aussi di féliciter bu baax nag waa mairie Thiaroye Sud gi parce que Thiaroye dafa nekk symbole c'est c'est c'est une localité symbole dans la lutte contre l'immigration clandestine ñu wax ci wàllum wér-gu-yaram rapport bu yees bi nga xamante ni euh, dañ ko génne te ci feebar bi di euh, sida ñi ko taxawaayu Sénégal ak euh, góor góorlu gi nga xamante ni ñu ngi ko ci def ci xeexum feebar googu moo tax ñu amal ab lël daal di ci wax ni tamit taxawaayu yenn ci tund réew yi ci tundu Afrique bi yëpp seen taxawaay yeeg ak feebar bi fu mu toll ci Afrique bi ñu teewlu ci leeral geek Yaay Kumba Njaay ak Amadou Ba réew Sénégal dañu ko jël exemple ci xeex bi ni xeex VIH cida ndax nag taux de prévalence bi yegg na ba moins un pour cent loolu nag ma nga jóge ci benn rapport atum 2023 bu waa ONU sida génne. Euh, je pense de manière globale rapport dafa wane que am na ay akki am na ay progrès mais am na aussi ay ay gap donc acquis yi euh, gis nañ ñu ngi avancé bu baax ci prise en charge de manière globale gis nañ tamit que que nouvelle infection yi dans la population générale dafa wàcc. bien que population clé yi ñoom ñooy source bi ak gis nañ tam ne xale yi ñoom tam il faut que ñu gën leen euh, xamal feebar ñu mu ko moytandiku. ba tey ci rapport boobu génn gis nañu si jàngoro bi daal mi ngi ci ndaw ñi ba léegi. xam ne des na mooy prise en charge pédiatrique prise en charge pédiatrique ko wax nag xam na ne euh, il faut que prévention transmission mère enfant bi dox bu baax. prévention transmission en enfant pour mu dox il faut que fem yi nga xamante ni les femmes qui sont en état de grossesse ñu mun leen toppatoo bu baax mun leen saytu seen yaram mën a tam di leen suivre ba seen doom mun a am euh, lu ñuy wax diagnostic euh, définitif mooy Euh, bu feree dañ ko war a suivre am 18 mois mu def lu ñuy wax diagnostic définitif. stigmatisation bi ñu seetlu ci feebar bi mën na leen jural ay jafe-jafe ci seen liggéey waaye nag def nañu si ay jéego di ay kàddu soxna si. Euh, je pense que dañu manière globale dañu wax ne am na stigmatisation mais Sénégal lu ñu gis euh, te loolu tam boo gisee mën ko wax nekkoon naa si acteur riposte yi nekkoon naa si programme bi si liggéey lu yàgg donc stigmatisation ak discrimination vraiment mën nañu wax ne nekkul problème au Sénégal. naam peut-être jeexu fi ba mu jeex mais euh, am na jéego bëri Sénégal def je pense que Sénégal aujourd'hui euh, aussi yàlla a la société civile xam daf ñu jàppale donc euh, yaatal nañu faj bi parce par exemple population clé euh, am na ñu leen toppatoo di dem ba dina fekk fi ñu nekk di toppatoo donc je pense que ñun def nañu ay jéego yu bëri si anam boobu. rapport bi nag dafa dëggal rek liggéey bu am solo yi pays africain yi di def ci xeex bi ñuy xeex feebar bii di VIH sida. Yacoumba jërëjëf ñu waxtaanee leneen waxit ci mbirum euh, compteur woyofal geeg seeraay ji nga xam ni yenn ci client yi dañ ko seetlu ki nga xamante ni moo yor kaddu euh, yenn ci ñi nga xamante ñoo yor mbirum compteur yooyu yëkkati na ci ay kaddu daal ne jamono ji ñoom gisuñu ci ak euh, yokkute leneen liñ ci gis kay mooy fi mu ne ñi ngi xool yeneen pexe yoo xam niñ ko mën a teg ba mu gën mën a wàññeeku ñu teelu ci kii di Tabara Ndoye Ba mi nga xamante ne moo yor mbirum commercial bi ci micro di Saprera tarification woyofal nag buñ ko waxee c'est une tarification par tranche donc boo xoolee bu ma jëlee client woyofal domestique petite puissance mooy euh, ki nga xam ne moo gën a faible euh, puissance euh, si domestique yi client boobu dafay am cent 150 kilowattheures en première tranche sur cette première tranche là taxe communal rek lay fay nga xam ne taxe communale c' est 2,5 pour cent montant wu énergie bi Sénélec moom ko daf koy collecté pour les communes euh, pour euh, les collectivités locales ñu leen koy reversé chaque année. li ñuy prélevé waat rek ci premier achat boobu mooy la redevance la redevance Sénélec ñëw change ko gratuitement su amaatee problème et cetera te client bi du ci fay du ci fay dara. boo jeexalee nag boo atteindre nag limite première tranche bi nga xam ne mille 14 446 la yaa ngi dugg nag ci deuxième tranche deuxième tranche bi tarif bi moo gën a élevé tuuti parce que 136 virgule 49 francs la boo duggee ci euh, boo jeexalee limite deuxième tranche bi nga xam ne vingt 28 400 la ah su boobaa nag laneen loo consommé ci dans le mois euh, dañ si jël TVA ku nekk xam na ni TVA bi Sénélec moom bu ko daf koy également pour l'État loolu mooy Euh, tarification au niveau du woyofal ñu fàttali leen leen rek tarification boobu lu avantage la pour client bi parce que boo xoolee woyofal de tranches la am mais boo xoolee classique également trois tranches la am avec le prix de cette troisième tranche qui est beaucoup plus cher war nañ leen sànq par des cas pratiques euh, client bu nekk boo jëndee naka lay varier dans le mois wan nañ leen ki nga xam ne daal le dans premier achat atteindre na limitu première tranche naka lay comporté woo si desitu weer bi ki nga xam ne dès le premier achat atteindre na limitu deuxième tranche nakal ay achat am di varier pour li des ci mois bi ma fàttali leen ne nag bu ñu demee ba fin du mois système bi day def une remise à zéro donc da ngay bénéficier waat tarif euh, première tranche bi ci est exonéré de de TVA nga bénéficier waat si deuxième tranche bi qui est ñu wax ci wàllum suuf jàll ba boori Tiwaawoon dëkk bii di Coxmat nekk euh, village boo xamante ni ma nga nekk ca Jogo foofu nag euh, ña fa fare dañ leen euh, jële fa ñu dëkkoon yóbbu leen ci feneen foo xamante ni ñu ne amuñu fa fi mu ne nii dund gu féex ndaxte jafe-jafe ndox ak yoon yu baax ak yeneen ci yi nga xamante ni ndaw ñi ña nga fa te mënuñu am liggéey moo tax ñu fi mu ne nii yëkkati seet ay kàddu jokkoon nañu kii di Cheikh Anta Diop ak ñi ngi ci dëkk bi ñuy wax coxmaat digganteem ak jogo toll na ci fukki kilomètre ak juróom-ñett benn kilomètre dox seen diggante ak xonq yooyu bërëb bii ñii nga xamante ne ñi ngi nekkoon ci biir miin bi dañ leen a toxol indi leen ci bërëb bii waaye askan wi de nee nañu li ñu waxante woon ak waa GCO defuñu ci dara galaba mi nee na fii ñu leen indi de jafe-jafe yu tar lañ fi nekkee ndaxte am ndox mu sell de amu fi. biñ fi ñëwee léegi toll na si at ba léegi ñoom ñu ngi fi amuñu fi ndox mu baax boo xamante ne mën nañ koo naan weex na trop ay forage lañ gas gas def ay solaire pour ñoom ñu mën a am ndox mais équipement bi ñu war a am dégg-dégg amuñu boo leen expliqué nga woo leen wax wax ak ñoom dañuy dalal sa xel ne la suba dina ñëw def ko walla weeru nangam jour boobu lañ ciy pare. suñ defaree njoon war kaa jox suñ doom war cee lekk boo defee meew nii lay mel day ñuul kukk doo ko mën a lekk. ndax ndox mi ndax ndox mi. ndox mee koy def nii lii xam nga ne bu demee ci biir ñaari fan nga feebar. ndox mi xam nga ne boo ko joxee xale bokkul ak mag day ubbi butitam seen biir yëpp day dox. boo fi jógee ñaari fan nga dem Dakar boo fi ñëwaatee dangay mel ni tubaab ndox mi moo baax moo yàq suñu yaram. sax nee nañu dañoo amoon ay tool ñu yëkkati leen waaye boobee ba léegi joxuñu leen ay suuf ñu mën a bayee wala ñu fay sàmme. moo ci gën a métti mooy xale yii nga xamante ne yi dañoo jaar ci seeni tool jaar ci seeni tool yu pap jaar ci seeni tool ñu ne dinañ leen delloo ay tool neuf mois ñu ngi yor ñu ngi yor ay bët ñu defoon sëyee environnement ñu ne pour loo xamante ne lii ñëpp dinañu ci mën a liggéey ci biir beeñ bi environnement ku ne moon na ko. ndax njëmbat la. nun ak CSO li ñuy may jàmm ak ñoom mooy lañu respecté lañu waxoon ak population bi. bi ñu jokkoo ak yenn ci kilifa yi nekk ci geste wu nee nañu de dëkk yi ñu toxal ñoom ñëpp de jox nañ leen ay ndàmpaay bu jógee boor yi Tiwaawar ñu jàll ba boor yi euh, foofu nag fu nawet bu teroo ci jamono ji dañuy euh, seetlu jiixi jaaxa bi dox ci diggante ñi nga xamante ne ñooy sàmmkat yeeg baykat yi waaye am na ñu jóg yëkkati seen euh, dal ngir mën a dox jàmm waaye woo leen ci jàmm ak dal rawatina ci jamono ji moo tax nag fi mu ne nii ñi ngi gën leen mën a ñaax ci jàmmoo ci rawatina ci jamono ji nga xam ne mooy nawet bi ñu teelu ci leeral geeg Bakary Kontek xaali jëmee dee bëri xuloo ak ŋaayoo ci diggante sàmmkat yi ak béykat yi lu ko waral nag mooy divagation des animaux njur bi nu muy duggee ci tool yi daal di lekk lépp loo xamante ne askan bi béy nañ ko. nawet bi commencé na kon foo ñu jéem a waxtaan ak ñoom daal di leen di dëggal ni fu ñu toll nii nañu téye seen nag yi pour ñu bañ a yàqal. parce que am na benn jigéen bu nga xam ne moom faroom dafa dem nag góobu kese moo fa des góob yooyu nag benn mbaamu ñëw. man ak sam beneen naataango ñu daal di ko dàq ñu dàq mbaam bi mbaam bi daw dem taxaw tuuti xool ñu dàqaat ba ñettal yoon mbaam bi di engagé mën na ko kaa ñu dem. productrice yoo xamante ne ñu ngi ci vallée bu Samiron ñoom tamit jafe-jafe boobu la ñuy jànkonteel. nag yi mbaam ak cochon porc yi chèvre yëpp dañuy ñëw foofu abu amuñu kii téye chaque délégué de quartier il va avertir aux gens. am na nag ay ndaje yoo xamante ne dañ ko jot a si ñetti département yi muy Sédhiou Goudomp ak Bounkiling loolu nag lu ko waral daal di toog ak acteurs yëpp éleveurs agriculteurs ak technicien élevage ak euh, agriculture loolu nag lu ko waral nag mooy waxtaanee ci loi d'orientation agro sylvo initiative boobu nag Pape moo ko jël. dañu ñëw pour waxtaan ci euh, loi d'orientation agro-sylvo-pastorale bi nga xam ne secrétariat euh, d'État. aux coopérations et a la à l'encadrement paysan moo ñu ko jébal ñi convoqué ñi nga xam ni ñoom dañuy liggéey ci mbirum mbéy ci mbirum pêche ci mbirum élevage ci samb pour ñu toog ñu waxtaan ci loi bi lan mooy seen gis-gis ci loi bi dinañ def après benn rapport bi nga xam dañuy tënk lépp li nga xam ni dem na ci mbirum loi bi producteurs yi nag daal di rafetlu bu baax ndaje boo xamante ne amal nañ ko nit da nga war a xam yow sa limite fan la def wala soo ko defee lii moo la lii moo xaar soo ko deful tamit lii nga lii moo la xaar. autorité locale yi nag ñëwoon nañu fekkee ndaje bi ñoom nag li ñu bëgg acteurs yi yëpp daal di respecter engagement yi pour nag ñu amal saison agricole boo xamante ne du am benn xuloo diggante sàmmkat yi ak béykat yi. kii nga xamante ne mooy euh, jëwrin bi yor wàllum biir réew mi jamono ji mi ngi amal ab euh, tukkib nemmeeku ci kër kilifa diine yi amal waxtaan ak ñoom wax it tamit euh, ñaan leen ñu ñaan jàmm mu gën a sax ci réew mi ci demoon na fële ca Louga daal di waxtaan ak ñii di famille omarienne jàmmoo jeeg gën leen a ñaax ñu gën a ñaan jàmm ak dal fii ci réew mi ñu teewlu ci ay kàddoom ci micro Thierno moom général Tine. pour sàkku ñaan si yéen. ngeen ñaanal président bi ak premier ministre bi ak gouvernement bi ak mboolem autorité yi yor réew mi actuellement seen bébét ak seen yéene ci Sénégal yàlla jàppale leen ci ba mu antu ba mu sotti ci jàmm sàkku ñaan pour réew mi jàmm yokku fi jàmm sax fi parce que ci jàmm la lépp xaj fii dañuy ñaan jàmm yokku fi réew yi ñu wër ñu ngi ñaan yàlla may leen jàmm ñoom ñi ñàkk jàmm xam nañu loo lu lu jàmm di jar kon ñun suñu jàmm gi fi am vraiment nañ nañu ñaan mu sax fi nañu liggéey aussi mu sax fi ca loolu am nañ yaakaar lool ak wolute kilifa diine yu mel ni Thierno Thierno Bachir nu yokk seen ñaan gën a téye fi ñu téye woon jàppale ñu ci askan wi jàppale ñu ci taalibe yi pour lépp li ñuy def mu daal parce que xëy na ñun dinañ wax mu am ñuy werante waaye kilifa diine yi yàlla may nañu Sénégal fu fu nu waxee lu nit jàppoon bàyyi ko ñu wax ci leneen ñaar fukki fan ak euh, benn jàppante bi doon dox ci diggante kii di euh, député bi di Guy Marius Sagna ak beneen député bu cosaanoo fële ca Côte d'Ivoire di Ajaratu Traoré moom ci boppam dafa ñaawlu kàdduk euh, député sénégalais bi di Guy Marius Sagna ci kàddu yu mu yëkkati jagleel ko yenn ci njiitu réew mi fii ci tundu Afrique moom ci boppam nee na kàddu yooyu moo tax mu indi woon ñagas-ñagas seen diggante ñu teewlu ci leeral ge kii di Abdourahmane ñu ñuy teewlu kàdduk Abdourahmane Peut-être que nous, CEDEAO, nous regardons le monde, l'Afrique et nos propres pays avec les yeux de nos donateurs. ginnaaw bi mu dëggalee boppam ci parlement bu CEDEAO daal di yëkkati ay kàddu yu dëgër jëmale ko ci ay njiitu réew ak kanam gi nga xam ne noonu la ñuy doxalee li nga xam ni moom mooy parlement bi Guy Marius Sagna ngay gis fépp ci réseaux sociaux yi ak ci yenn këram tasum xibaar yi nga xam ni ci Afrique de l'Ouest la jaarale ko Togo Guinée Bissau dem ba beneen wala boog Côte d'Ivoire député sénégalais bi njiitu réew yooyu noonu yëpp la daal di teg seeni ànd kàddu yu dëgër daal di teg seen kaw. nous devons être unis autour d'un gouvernement mu doon mbir mi nga xam ni sax tax na ba na ci ay député CEDEAO dal di mer li ni mel sax a tax ñu daal di génne ab bataaxal ngir dànkaafu ko waaye nag ñu bare ci askan wi rawatina ñi nga xam ne ñoom la ñu duppee révolutionnaire wone nañu mbégte bi nga xam ni am nañ ko ci Guy Marius Sagna li ni mel sax a tax ñu jàpp ni ci parlement boobu moom moo fa yor seeni kàddu njiitu mouvement bi ñu duppee FRAPP France dégage lii nag du lu bees ci ay jukkoom ndax mayuloon dara. njiitu réew bi fi nekkoon Macky Sall saa su ne ci defante la dëkkoon ak nguur googu li ni mel sax a tax ñu daal di koy jàpp lu bare yoon ñu dem sax ba di ko tëj ci lu jëm ci wàllum trouble à l'ordre public ndax ci ay manifesté yi nga xam ne daal na ko amal te amu ci autorisation moom nag bi muy nekk député li mu njëkk a def ci luy wone ni am na taxawaay bi nga xam ne du bàyyi dara sedd mooy gàddu kees bi nga xam ne fa la ñu doon dugal enveloppe yi ngir fal ki nga xam ne moom mooy njiitu assemblée nationale li mu doon ñaawlu mooy jàpp na procuration yi doonoon na li nga xam ni daluloon xelam teewul nag Guy Marius Sagna taxawaayam ci assemblée nationale ñu bëri jàpp ne yëkkati na niveau débat bi ndax am na lu bari li nga xam ne jàpp na ni jaarul yoon saa su ne daf koy xeex li ni mel sax a tax lu ëpp juróom fukki question écrite orale ak d'actualité dal na koy déposer. Chez nous là, chacun veut être président chez lui. Chacun veut être président du Parlement chez lui. Chacun veut être député chez Chacun veut être ceci ou cela chez lui, au détriment des intérêts du peuple de l'Afrique de l'Ouest. Voilà pourquoi nous n'aurons pas des bus comme les États-Unis. Voilà pourquoi nous n'aurons pas des routes comme les États-Unis. Abdourahmane Diallo jërëjëf euh, club bi di club OHADA bu euh, daara ju kawe ji di euh, nekk ca Ndar di université Gaston Berger amal nañu ab ci samedi bi ab compétition boo xam ne doon ndox ci diggante étudiants yi ñu gën leen a ñaax ci yenn ci secteur ressources yi ngir ñu mën ci gën ci mën a am ay information yu wér te wóor mu nekk it tamit loo xamante ni dina tax it tamit yëkkati débat boo xamante ni dina am niveau rawatina ci xam-xam ak i tamit teg ko ci njub ñu teewlu ci leeral geeg Ousseynou Diop ak Habib Seck. gaz pétrole ak yeneen yi nga xamante ni ci suufu Sénégal yi lay jugee lu intéressé étudiants yi la ci ndaje bi nga xamante ni club OHADA bu université Gaston Berger bu Ndar moo ko doon amal ngir waxtaanee lu nu mel ñoom ndaw ñi wane nañ bu baax a baax ni lii lu leen soxal la. les projets la classe. projet bi tey jile may na université yi ak étudiants yi ñu xam bu baax a baax lan mooy exploitation gaz ak itam lan moo ci nekk loolu tey li mu wane rek mooy étudiants yi lii lu leen soxal la ndaxte ndaje bu ne lu toll ci juróomi téeméer ci étudiants daanu gis nii ñu ngi ci biir kon amal na leen njariñ te itam ñoom seen bopp kon mbir mi soxal na leen. pendant ces moments nous avons discuté des thématiques. lii nag dina may étudiants yi ñoom ay informations yu wóor lu jëm ci wàllu pétrole ak gaz. xam itam nan lay doxee ngir ñoom seeni bopp suba ñu mën a téye réew mi. dañooy dañuy tàggat xale yi ci naka la ñuy amee information bu bu dëggu ci wàllum or ci wàllum pétrole ci wàllum zircon ci wàllum gaz ak ci wàllum phosphate ndaxte xam ngeen ni ci réew mi bëri na information waaye information bu bu wér te wër am na fi. ci kàddu ki fi teewaloon université Gaston Berger bu Ndar ndaje bi lee tax na tey jilee étudiants yi mën a xam bu baax a baax information yi nga xamante ni ay information yu leer la jëm ci wàllu gaz. di leen may itam ñu def ay recherche. puis tax ñu gën a xam loo xam ni réew mi yëpp a ko bokk muy secteur extractif mu muy suñu alal ñun ñëpp te loolu léegi ñëpp ñëpp ngi koy wax waaye xamuñu lan moo nekk ci biir. USAID Trace ak ñi nga xamante ni ñooy club OHADA bu université Gaston Berger bu Ndar nag seen mëbët mooy fexe ba lépp loo xamante ni day jóge ci wàllu gaz bi ak pétrole bi mu nekk lu leer te jàpp na ni loolu rek moo mën a tax Sénégal mën a nekk ci jàmm. ñu jàll ci wàllu tàggat yaram ñaari fan moo des ñu euh, daal di amal euh, ubbi lii di Jeux olympiques yi nga xam ñu ngi ko fas yéene amale fële ca Paris ci atum bi Sénégal nag fi mu ne nii fas yéene ci dalak euh, fukki athlète ak benn mu am ñu yees am ñoo xamante ni ñi ngi am yaakaar ñu daal di wuutu kii di Amadou Diaba yi nga xamante ni moo nekkoon médaille olympique ci àndub 1988 ñu ci mel ni Louis François Mendy ak Ndeye Bint Diong mi nga xam ci mbirum escrime la Manick Ndiaye ci ñu teewlu tënku beeg Cheikh Sadibou fukk ak benn lañu ñu bëgg a dakkal li Sénégal di xaar médaille ci Jeux olympiques fanweeri at ak juróom-benn mu ngi nii athlètes yi nga xam ni li ëpp ci ñoom seen jaloore moo leen yóbbu ca JO yu Paris 2024 yi 26 juillet ba 11 août bii di ñëw Louis François Mendy moo wane yoon bi bi mu qualifié ci 110 mètres yi ci weeru juillet 2023. champion d'Afrique bi yor record bu Sénégal doon kenn ci ñu gën a yaakaar am médaille ba tax na mu di porte drapo ak Combé Seck kii di def canoë kayak ci club bu Wakaam moom weeru novembre bi weesu la qualifié wu ak ñaareeli place bi mu jël ci championnat d'Afrique yi niki Bokar Diop ci wàllum taekwondo weeru février bi weesu moom mi nekk ci quinzième place classement mondial bi ci catégorie am jamono ji Yves Bouris itam ci weeru février la qualifié ci wàllum slalom ci canoë kayak dafa bokk ci ñi raw ci classement bu Afrique loolu tamit la Ndeye Binta Diong def moom mi nekk ci wàllum épée ci escrime moo jëloon tournoi qualificatif bi ci weeru avril bi weesu ndey Binta jong bi doon waa Sénégal bi njëkk a jongante ca Paris mu dëgmal ñaareeli Jeux olympiques niki Mbagnick Ndiaye biy def judo te qualifié ndax premier place bi ci ranking africain ci weeru juin ci ranking itam la Ibrahima jaw amee qualification ci wàllum tennis de table médaille de bronze bi ci Jeux africains yi weesu moo nekkoon ci 49e place bi ci weeru juin Cheikh Tidiane Diouf champion d'Afrique ci 400 mètres ak Sali champion d'Afrique ci triple saut dañuy jaar itam ci classement ngir qualifié Oumy Diop ak Mathieu Sey ci wàllum fey dañ leen invité ñoom Oumy Diop mooy vice champion d'Afrique ci 100 mètres papillon Mathi Seye moom moo yor recordu Sénégal ci 100 mètres nage libre ak fukk ak benn athlète yu dem ci Jeux olympiques yu Paris 2024 yi Sénégal am na progression ñu di xaar ñu gën a dugg ci taarix ak médaille Cheikh Sadibou Diarra jërëjëf euh, football américain di beneen tàggat yaram buy amee xewee fële ca Amérique ñu baal di koy bëgg indi fii ci réew mi moo tax ay euh, sénégalais yoo xam ni ñu ngi dox ci diggante Amérique kanada ak fii ci réew mi ñu bëgg ko initier fii mu nekk lu yees nag ñu amal ab stage boo xamante ni ñu ci bari bokk nañ ci ñoom nag seen bébét mooy fexe ba ndaw Sénégal yu bari daal di commencé euh, yëngatu ci wàllum tàggat yaram boobu ñu tuddee football américain ñu teewlu ci leeral geek Ibou football américain nga xam ne siiwul loolu ci Afrique moom nag lañu bëgg indi fii ci senegal ngir may ko doole Xaadim Mbay nekk koo xam ne daan yëngu ci tàggatu googu moom nag dafa initier benn stage nga xam ne bii mooy ñaari li at sax mu di ko def jagleel ko ndaw ñi. li doon yéeneem moo doon indi progressivement ndànk-ndànk ñuy dugal football américain mais nag loo gis dafa am tàmbali. moo taxoon d'abord xam na ni matériel dafa cher moo tax mu fexe ba wut dajale matériel bu takku ci équipement sport bi mu indi ko yónnee ko par bateau mu ñëw bi mu ñëwee tamit lan la waroon def mooy ñi nga xam ni sport bi intéressé na leen gi dinañ ci gis seen bopp gis nañ ne yëf yi intéressé na nit ñi parce que ñi bind woon ëpp na ñetti téeméer ak lu topp mais nag loo gis tamit il faut ñu tànn bi ñu tànnee dem nañu ba juróom-ñetti fukk ak juróom lañu mujj retenir ñoom ñoo fi ne nii depuis bërki démb ñu commencé di leen defar ay test di leen natt nag gis nañ ci ne xale yi def nañ ci ay jéego yu am solo ay performance yu am solo yoo xam ni ñoom yëf yi da leen a bett. ngir dooleel projet bi ñoom ñi nga xam ne ñoo ko sumb am yaakaar lool ci disipline bi di football américain. yii am na déjà ñoo xam ne ñoom gis nañ ne teg nañ leen bët war na noo mun a nag. wane seen bopp ca Amérique a Canada ak feneen ak feneen mais dans un premier temps bëgg na li xew Nigéria wala xew Égypte wala même Côte d'Ivoire commencé nañu war nañu mun a ñëw di entre pays africain ñu commencé nag di di di euh, jongante seen diggante pour mun a ëllëg prétendre dem ci championnat américain wala championnat canadien li Sénégal yi di jógee fii di dem si NPA bi nan war nanu mun a dem nag ñu gis nii ñu nekk si NFL bi dem di si ñafe di ci am teraanga di ko delloo si waat Sénégal di ko investir si seen réew ngir lii mun a jëm kanam parce que ñii suñu rawee rek ñeneen ñi si des moom mun nañoo raw parce que ñii dañu war a dellu si waat pour samp fi ay école pour samp fi ay daara ci wàllu wàllu sport pour mun a euh, ñeneen ak ñeneen ñeneen. taxawal ab ligue boo xamante ne football américain lañ koy jagleel fii ci Sénégal Khadim Mbaye ak équipe am ñoom noppi nañ ci ba pare ba wone seen feuille de bëgg nag gën a siiwal sport bu ni mel fii ci sunu réew. jërëjëf euh, Ibou Kane mbokk yi li moo doon tëj euh, xibaaru mbarax yi ne tut euh, Sara Cissé dina fi ñëw yaatal xibaar yi ci kàllaamay nasaraan ci kanam ci boori 21h30 kii di Papa nga Ndiaye ci ak émission bi di faram fàccee fas yéene daral jëriñ bi yor wàllum dem beeg dikk bi di El Hadj Malick Ndiaye ci bu kanamee lay doon jaajëfal leen ñu fanaan jàmm.